yaa rabbana bi jaay xayril xalqi aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba jërëjëf Serigne Touba jërë am maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokk yeeg xarit yi comme niñ leen ko daan defale saa su ne rek nekk rek nee nañ leen Madiyana TV daanaka li ko taxoon a jug mooy seet fépp foo xam ne yëngu-yëngu yoo xam ne ki sëriñ bi la jëm te mu jóge ci ndaw ñi dana leen ko fas yéene waral keroog nag def na nañu benn émission ba yëgal leen ne waa Nourou Daara ni Touba ESP ñu ngi wàcc seen bis bis boobu nag euh, ni leen ko diggee woon rek tey jii dafa egsi ñu nekk fii ak euh, yenn ci jëwriñ yi ñi nga xam ne tàmbali nañ liggéey bi ba nu xëyee ba tey tey nag ñu ngi waxtaan ak jëwriñ café gi sëñ Souleymane xanaa ñu bàyyi la nga nuyoo rek ñu laaj la tey bis bi daal nu ngeen ko dundee euh, waaw maa ngi nuyu maa ngi nuyu di siyaar ñëpp di jiital si nuyoo bi sëriñ Mountakha Mbacké di si teg sëñ Cheikh Jëmb Fall maanaam di si teg tam jëwriñu daara ji ki nga xamante ne moom moo moom moo sanc daara ji di sëriñ Abdul Baaxi Mbàkke mm-hmm. ibna ibna sëñ Xaadim Mbàkke conférencier ibna sëñ Soxna Faati Mbàkke ibna Maamor jaar waaw ñu ngi siyaar ñëpp ñun nag ñun la yàlla dogal ñu ñuy liggéey ak sëñ Mohamed Kan mi nga xamante ne mooy jëwriñu kafe gi waaw ñuy liggéey ak moom ak ñoom sëñ Maam Thierno yii nii yëpp ñoo ñu siy jàppale ak ñoom sëñ Sëriñ Asan Fall ak sëñ bi mm-hmm. moom it ñun ñëpp ñun ñoo nekk si kafe gi daal di si liggéeyal sëñ Tuubaa nag bu wér nag ren nag di neuvième édition cant Nuuru Daarayni ESP muy daare joo xamante ne maanaam bu taw féexe la boo xamante ne ñun fi lañ jàngee lépp lépp loo xamante ne maanaam xam nañ ko si yoonu murit ak xam nañ ko suñu diine fii lañ njëkk a tàmbalee it kuréel moo tax daara ñi moom day loo xamante ne maanaam dafa sori suñu ñun waaw sori suñu sori sori suñu lool jaral nañu lu ne nag moo waral maanaam cant gi moom heure bu ya suñu borom dogalee maanaam mu agsi mm-hmm. ñun daal la suñu borom taw feexele ñun féete fii nii daal waaw ñu bég lool nag bég si lool lool lool waaw ànd seeg taw feex bu baax a baax xanaa kon ñu jàll ci sañ Maam Thierno rek laaj ko liggéey bi naka la demee bi ngeen xëyee ba tey waaw salaamaaleykum barke borom Tuubaa waaw kon ni ko jërin waxee rek xanaa daanaka moom su waxee sax ñun nan daanaka mënatuñ see teg dara mais liggéey bi ni mu demee soo ba léegi boo xoolee café gi soo ba léegi saa biñ tàmbalee ba léegi mu ngi mu ngi daw mm-hmm. gars yi soo ba léegi ñu ngi naan café te loolu rek mooy loolu mooy wane tawféex gi nekk ci kafe parce que boo xoolee cant gi xéwal yëpp ñu ngi jàll daanaka lépp dina jeex mais café gi moom saa su ne gars yi dañuy ñëw café di di laaj café te sa 8 heures ba léegi gars ñu ngi segg te looñu segg rek incha allah ci tawféexu sëñ bi lépp la gars yi di di lépp la gars yi di jëfandikoo daal waaw daal café gi daal moom mi ngi dox mi ngi daw mi ngi dox bu baax baax baax te mi ngi fort ah kon nag day mel ni gars yi ñu fas yéene jublu ci beneen commission rek ni ñu leen ko waxee ci café gi rek gars yi moom bi ñu xëyee ba tey ay jàmbaar lañ daañ nañ ma fi ñaari kaas yu fort yoo xam ne waaw kon mbokk taalibe yi euh, demee woon ci café gi jël fa lépp li nga xam ne mi ngi fa doon am ne fi la bernde yi di génnee fi la mbokki taalibe yi di jëflante bu seex keek benn ci jëwriñ yi nga xam ne ñu ne woon ci waañ bi ñu xëyee ba tey ñu koy bàyyi mu nuyoo dégtal turam ak euh, xeet yooyu daal salaamaaleykum ñu nuyu mbokk taalibe yépp di ziar képp kuy seetaan euh, émission bi leen sant bu baax ñu tudd Cheikh Ahmadou Diop nekk fii ci daara ji Nuuru Daaray ni duma fi jëwrin nag taalibe laa fi waaw ñu ngi sant bu baax. ak saa kon kon jëwrin bu nu gisee sababu cant gi danoo gis tey ay xéwal yoo xam ne def ngeen ko yu am solo daal di koy génnee joxe ko ci mbooloo mi loolu ñu bëggoon ngeen wax ñu solos bi jëf jooju rek lañu bëggoon ngeen ñëwal ñu si waaw alhamdulilah ñuy sant yàlla rek sant suñu borom sant Serigne Touba bu wér moom laata sax euh, ñu koy xamee ci yoonu murit ndax fa la fa yoonu murit moo ko fësal waaye lu suñ borom namm la lu suñu borom bëgg la ndax suñu borom. moo ne moom moo yor moo yor kilifa yi yor seen njaboot kilifa yi ñu seen njaboot mais suñ suñ borom moo leen yor maanaam moo leen joxe li ñuy dugal seen biir loolu sax suñ saaliw ana ko yàlla yokki leeram waxoon na ci lu am solo mu ne nit de ñaari biir la am biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam nag suñ borom mi ko jox dina ko jox lim ciy def biiru bàmmeelam ak moom moo ci liggéey lu ci yóbbu kon loolu day wane rek suñu borom loolu moo ne moo koy joxe léegi nag yow mi jaam bi suñu borom digle la ne nga jël say xéwal di ko joxe ashfaqtumu an tuqaddimu bayna yaday najweekum sadaqatan fa in lam tafalu fa taaballaahu aleykum kon sadaqatan boobu mooy jël di joxe waaye nag ci li nga xam ne yurauna wa yamnauna almaun doo ci def ngistal doo ci def wanewu kon loolu day wane solos bendel xamne ne jam jaamu yalla lah. la ndax dajale sa alal dajale sa ñak boole kook liggey togg ko ba mu neex ci li ci li nga gëna bëgg nga jël ko joxe loolu mom yaakaar naa ni tawfeex rek la ta ñun ay mourid lañ bëgg dooni ay baye fall ki nga xamne nak moy buntu bi di mam Cheikh ibrahim Fall daf ñu ci daf ñu wan yoon bi ci walum bob kon ñun lool rek lañ ci roy ñun xamuñu ci fu mu ak lu mu demee waaye maam Cheikh Ibrahima Fall mi ñuy yéeg rek moom la ñuy roy ci lool aga agasa kon muy mel ni jëf jooju ngay wax am na solo ngir euh, damuwu leen ci tiitaruwu leen ci seen borom euh, digle ci ñoom rek muy ndigal loo xam ne wàcc na ci yéen ngeen jëfe ko ci kaw loolee fas yéene dabe ndab ci mbokki taalibe yi. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydinaa Mohamed di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon. yéen ngi fii seen biir télévision Madiyana TV ñu leen daan wax faral di leen fàttali ne cant gii de amee fii ci biir université Cheikh Anta Diop di waa Nourou Daarayni ISP e di ko def tey nag bis bi jot na di la 20 tey jii ñu ko doon defee fii ci bi université Cheikh Anta Diop comme niñ leen ko waxee woon ne woon nañ leen lépp loo xam ne dina fi am ci biir cant gi dinañ leen won lépp matal lépp ba ngeen gis ko yéen ñi nga xam ne bëggoon ngeen koo teewee daf yàlla def ne teewu leen ko incha allah lépp lu fi daw dinañ leen ko wan tey nag ñoo ngi fii ci biir waañ wi toog ak suñu benn yaay booy ndax doon na ndaw soo xam ni doon na tamit yaay joo xam ni doon na tamit jëwriñ joo xam ni yàgg na ci waañ wi lool ndax lu bari fi la ko fekk te lu bari tamit xam na ko ci biir cant gi xanaa duñ def lu dul nuyu ko te ziar ko ngir mu wax ñu xamal ñu tamit ni lan mooy cëram fii ci biir waañ wi ak cant gi tamit nan la ci gis lépp mu matal ñu ko duñ def lu dul nuyu ko salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam lay ziar. waaye maa ngi nangu ziar. waaw yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. waa tey comme la ko waxee woon ne ñu ngi fii cant Nour daaree ni te yow mën nañ ni fépp fuñ tam dañ naan ñu yaay booy bi moom moo diriger fi waañ wi. waa ñu bëggoon tamit nga leeralal ñu waañ bi maanaam moo fiy liggéey bi ak tamit ndax soxna yi fiy nekk tamit nga xam ni doom lañ ci yow fii nii ci biir waañ bi nan nan la ñuy doxalee liggéey bi ndax loolu yaa ngi ciy yëg sa bopp yaa ngi ciy ànd ak ñu mhm. ñu ngi koy matal na ndax man waañ wi maa ngi ànd ak sama frère yi lay àndal ñu may jàppale ndax man manuma dara yéen tamit yéen a xam loo leen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal ma ne ko seen liggéey bii ngeen liggéeyal sëñ tuubaa yàlla ngeen yokk ba yëg ko sëñ Touba moom kenn du ko liggéeyal di perte boo ko liggéeyalee sa kaw sa kanam rek kenn du ko liggéeyal di perte man su ma koy toggal yàlla daf may roof sawarte goo xamante ni duma xam fu ma koy jële dinaa am wér am jawarte yàlla nañ yàlla may gudd fan ak wér ñu fekke yàlla bàyyi leen fi na ngeen yokk ba yëkk ngeen yàgg di def cant gi yàlla bu ñu leen séddaleel dara seen ginnaaw yéen ñëpp yàlla ngeen ko fekke di def cant gi chaque année bu neexee yàlla maa leen di ñaanal na toujours. kon nag mbokk yi comme ñu ko waxee rek doole sant yàlla mën nañ ni matal nañ lépp comme ni leen ko waxee nee nañ leen lépp lu fi amee incha allah dinañ leen ko wan ba ngeen teg giseen seen bët gis lépp. xam naa duñ def lu dul rek bàyyi soxna yi ñu ko ne ci wàññi ngi dem xoolil leen leneen indil leen ko mbokk yi asalaamaaleykum